xaaral xaaral xaaral direct bi ñu koy suivre. Euh, huit mille huit mille trois cent. huit mille trois cent. huit mille trois cent. donc. dëgg la félicité aussi ci liggéey bu am solo bi ngay def ci sport bi. dëgg la. c'est vrai que ci lutte lañ la gën a xamee. Mhm. mais yow tu es un sportif mais également. qui merci. donc di la féliciter di féliciter également tout le monde sportif. dëgg également ngeen may ma rek ma sant encore gërëm. son mhm. excellence monsieur le président de la république. Mhm. ci yaakaar bi mu am ba nommé ñu à ce niveau de responsabilité. Mhm. donc dénk ñu département ministériel boo xam ni. ñëpp xam nañu ni mu amee solo ci Sénégal na mhm. Sénégal est un pays du sport mhm. parce que li ëpp ci population sénégalaise xam nañ ay jeunes lañu te dañu bëgg sport mhm. même mag ñi sax dañu bëgg sport mu dénk ñu ko ñuy ñaan suñu borom yaakaar bu président la république am ñoo ñaan suñu borom mu suturaal ñu ci ba am ndam ak yaakaar yi ci am ñëpp mu gis ko ci ñu ci ba am ndam ak yaakaar yi ci am ñëpp mu gis ko ci liggéey naa sport liggéey na Thiès en tant que maire ak les sportifs liggéey naa en tant que président du département avec les sportifs de Thiès te jàpp naa ni depuis 2000 ak le président de Seck bi mu tegee li ñu naan le comité sport à la présidence de la République mu copte ma dugal ma ci j'étais le plus jeune membre 2000 la comité sport. Mhm. avec ñoom Sadikh Traoré mi nekkoon conseiller spécial du président de la République ñoom Ismaïla Diallo. Mhm. tey mu nekk président euh, je pense euh, ci biir la fédération mais yor les les les arbitres. Mhm. donc. ñooñu ñëpp ñu ànd ak président Idrissa Seck yor le comité sport à la présidence de la République. mais également ma nekk maire de Thiès nekk président du département le principal soutien des sportifs de Thiès yàlla suturaal na ma mun naa ni man la woon. vingt ans ininterrompu ODCAV def na ma parrain final départemental bu Thiès pendant vingt ans. de manière ininterrompue. donc kon collaboration boobu dafa yàgg ak les sportifs. Mhm. donc tey président de la République su amee yaakaar ci man ba dénk ma département bi. Mhm. mun naa ni fekk na macha allah mooy sportif mais également am relation bu rafet ak les sportifs thiessois. Mhm. mais aussi sénégalais. ndax it yàlla dogal na li nga xam ni nekk na équipe nationale bi yàlla su defee ñoom ñëpp ñuy ñëw Thiès Thiès amoon fi stade boo xam ne moo répondre aux normes pour accueillir. donc les les compétitions de l'équipe nationale defe naa ni je faisais partie du premier. ñu fay mmh. jiite support équipe nationale mais aussi en tant que président du département dama doon ànd ak fédération bi di dugal sama loxo pour infrastructure bu nekk aux normes mu jàppale équipe nationale. Mmh. donc ba tey daay dama doon tooñ Matar ba sax naan ko mais Thiès moo jik moo jik euh, équipe nationale Thiès moo jik Sénégal. Mmh. Thiès la ñu qualifié Coupe d'Afrique. dem ko. man ma koy tooñ naan ko aussi defe naa ni mondial bi aussi Thiès lañ tàmbalee. Hmm. kon tey tamit yàlla suturaal ñu. donc noonu laa ko doon ànd ak waa Thiès sportif yëpp di jàppale équipe nationale. donc euh, toutes les disciplines aussi. Hmm. defe naa soo laajee yow Lamine témoin nga. Hmm. ci làmb. li nga xam ni yàgg nañ ma ko tudde Thiès yàgg tudde président de sec ak li ma yàgg jàppale làmb. donc muy les les courses hippiques donc euh, li ma ci président Thiès ñëpp gis nañ ko yàgg naa ko def. muy le cyclisme di l' athlétisme le basket defe naa ni waa Thiès soo te woowee la waa ligue de basket dañ la ni le principal soutien du basket à Thiès c' donc de loolu lépp dama ko nampa Idrissa ma ci nampatal mais aussi ma nekk sportif yàgg ci de ma jeunesse j'ai fait l' école de football donc jokko rek. donc c' est barki dem barki dem monsieur le ministre. Sénégalais ñuy doon la ñu a doon au niveau de la gestion de l' état à ce niveau de responsable dañ koy sant suñu borom. Mhm. sant ci yàlla bu mais mhm. également gërëm président la République ci yaakaar mu am mais aussi <clears throat> ñu loxo comme ni mu waxee dégg premier ministre mu jàppale ñu yaakaar président la République ambition yoo am ci sport ci sénégalais yàlla mottali ko jàpp. bërki bërki démb. waaw demande aussi nga rassurer sa confrère yi. waaw demande rassurer sa confrère yi. Mhm. partenaires pour que bërki démb bërki démb. asalaamaaleykum monsieur ministre. Euh, bërki démb dama ne. Sidi Diakhaté tuddee na la làmb. Hmm. nga thématiser làmb ji. wutal ko thème. Hmm. la jeunesse face fàtte naa thème bi exactement. oh la jeunesse les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux. est-ce que xam nga ni bés boobu nga ma inspiré ma dalal xelu askan wi amul benn dërëm yow boo dugal ci lii ma taxawal amul benn dërëm bu ci keneen dugalal mais dérive dérive sociaux yooyu ñun moom la ñuy moytu mm-hmm. que duñ fen mm-hmm. duñ yàq nit mm-hmm. duñu yàqal nit lépp luy defar ci la ñuy xëy ci la ñuy gont mais damaa yokkal askan wi ma ne leen xaw ma dara de mais kiñ ko jox mën na ko xam na ko te bëgg na ko dama ne mën na ko xam na ko te bëgg na ko waaye xam nga luy sa problème da nga doon koo xamante ne nii dafa jëlal Sénégal lu Sénégal mësta am muy coupe d'Afrique de nations sama maam fekkewu ko sama maamaat fekkewu ko ki jur sama maamaat maamaat fekkewu ko suma ndey fekkewu bi ñuy jël coupe d'Afrique suma baay fekkewu ko ñu ci daw avant indépendance ba tey Matar Ba en tant que ministre de sports indi ko ñu koy féliciter di ko encourager. waaye yow nga ñëw moment boo xamante ni ñun ñu nga jëm Qatar. Mhm. te ñun suñu performance bi gën ci coupe da ci coupe du monde mooy quart de finale. Mhm. ma ne leen ñun ñëpp nañ def bloc. Mhm. jàppale la indi coupe du monde bi fii. mooy benn. non yàlla dina ko def parce que ku xam sa xol ku xam sa xol. xam sa taxawaay ci ci réew mi. xam ko ci Thiès kon dinañ la jàppale ñun ñu indi coupe du monde fii. loolu mooy benn bi ci topp mooy. lamb ji liñ ci war a defar yépp mm-hmm. man xam naa ni am nga sens d'écoute di déglu ñépp maanaam fi ngay bañ a yegg mooy li Matar Ba defoon dix da nga koy def trois cent maa ngi lay ñaanal jàmm sénégalais yépp a ngi lay ñaanal jàmm di la ñaanal parce que sa réussite mooy suñu réussite. alhamdulilah lii nga def rek am na am na lu mu wanee lu bari. parce que xamoo woon ni dama lay jël en direct. xamoo woon ni dama lay jël en direct. kon jël naa la nga àddu lii la leen réew mi soxlaa. lii la leen président Macky sàll soxlaa. ndax réew mi bu fekkee ni dañ la fal ndomba tànk ci ci kàddu réew mi bu la réew mi soxlaa da ngay di jël seen téléphone yi. comme yow ni ngay def ku la woo nga jël ko boo paree nga rappelé ko bari nga ci ay morom mais bari nga ci ñoo xamante ni ku leen woo du leen jot et loolu c'est pas normal maa ngi lay gërëm maa ngi lay ñaanal jàmm et di la wax bon vent et bonne réussite ah. mm-hmm. mm-hmm. boo xam ni yàlla ci engagement patriotique am auprès du chef de l'État. Mhm. ci liggéey bi nga xam ne dénkoon na ko ko muy notre frère le ministre dëgg la nit ku baax. comme ni nga waxee mu def liggéey bu am solo dans ce département. Mhm. donc ñu koy féliciter encore. Mhm. di ko ñaanal donc li wax ni également comme ni nga ko waxee yàlla suturaal ñu sous son magistère ak l'appui du chef de l'État ci la Sénégal demee ba ci Coupe d'Afrique nga xam ne lu ñuy yàgg. rêve la liñ yàgg séntul hmm. mais également daf wax sax moom su yàlla dogalee Sénégal arrivé à ce niveau de performance hmm. mais également à ce niveau de compétitivité c'est hmm. grâce à l'engagement du chef de l'État mais également c'est grâce aux moyens mobilisés par le président de la République man yàlla suturaal na ma gën deux mois yi ñu génn lu président wax ci sport fekk na lu président wax ci Euh, ñaax na. parce que ministre nga woon également macha allah Matar tamit lu mu wax delloo de la ndax tout le temps il rappelle au président de la république si équipe bi excès fii yàlla président la république hmm. ci moyens yi mu mettre à la disposition de l' équipe nationale. Hmm. moyens yi mu mettre la disposition de la fédération. Hmm. mais également confiance bi am la république de l' équipe nationale. les parents de l' équipe nationale. le président la ci boppam mooy jël téléphone mooy woo certains joueurs mooy waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. moo leen di encouragé leen motiver. Mm-hmm. xam nga soo amee njiit bu mel noonu. kon mën naa ni liggéey bi cinquante pour cent moo la ko defal. Mm-hmm. le chance boobu lañ am ñun Sénégal. ba tax na kon tamit par rapport fi ñu jëm. macha allah àndaat taxawaay boobu aussi le président de la République damaat di ko féddali di ko gën a yokk ndax par rapport à la coupe du monde moom moo fixé la cap moo fixé également objective yi ak ambition yi. ba tax na ci ay directive am ci ay orientation ak ligne ci la ñuy dox la ñu bëgg également jëm. ci li nga xam ni moom moo suñu kanam ñaan yàlla defal ñu ci sutura yàlla defal ñu ci jàmm yàlla defal ñu ci ndam ndam loolu nga wax ñaan ko yàlla na ko yàlla mottali ñun ñëpp ñu bokk ko fekk ko muurloo ko Sénégal am na expertise bi compéti am mën am na euh, compétence yi am na également moyens yi mais également xam na l'engagement détermination du chef de l'État pour accompagner l'équipe nationale mais également toutes les autres fédérations pour ñu def ay performance comme ni ko équipe nationale de football. Mm-hmm. en tout cas loolu laa wax di ci tàllal loxo ñëpp nag surtout les journalistes du sportif dans tous les fédérations pour ñun ñëpp ñu àndandoo en équipe de manière solidaire donc dem ci li ndam ni comme ni ko président la di waxee. le travail le demain. le travail démarre demain. alhamdulilah a ah, démarré déjà. démarré nga. démarré naa. fast track. macha <laughs> merci monsieur ministre. c'est le nouveau ministre des sports ah ki nga xam ne moom mooy Yankoba jatara mooy le nouveau ministre des nii la bu la gars yi di woo dama leen di woon ne fii la tàngee fii lay xoyom xoyom xaar rek yéen may leen ba tuuti rek yéen online rek online léegi gars yi da ngeen di dem rapidement abonné ci suñu page YouTube ngeen def songante bu ngeen defee bu ngeen defee songante bu ngeen defee songante ba pare après xaaral dafa am keneen ku may woo euh, xaaral dafa am keneen ku ko defee ngeen def songante TV. ngeen abonné bu ngeen abonné ba pare ngeen capturé ko ngeen def 78 130 82 42 78 130 82 42 yéen a ngi si biir jeu concours bu ko defee 33 877 55 81 mooy numéro téléphone bi nga xamante ni nii moom ngeen di jokkoo ak ñun. waa mais papa mais papa maa ngi la jël en direct <coughs> lii de man rek maa ko ñeme. non kenn xamul kan laay waxal sax nii parce que defuma ko au mais mais dañoo am ministre des bu bees waaw bu ko defee xanaa ah, am nga ci ñaari kàddu yoo ci sànni rek waaw ci dëj nga nekk comprendre naa la comprendre naa la massa massa massa massa massa massa massa ndeysaan ci ci dëj la nekk Gaston Mbengue la woon euh, le Don King de l'arène sénégalaise si si si dëj la nekk zoo ñuy ñaan yàlla kooku nga xam ne génn na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana woyofal suuf ci kawam jéggal ko ay bakkaaram moom lañ doon woonoonu pour tamit moom it mu joxe xalaatam euh, ndax mbaam daa gàtt mais ci jur gi la bokk c'est le Don King de l'arène sénégalaise jàpp leen ni euh, combat yu bëri yu am tey moom Gaston nga moom moo ko taxawal kon dégg ngeen léegi ki nga xam ne moom mooy ministre des bu bees bi li nga xamante ni nii moom la wax mu am solo lool tamit tamit ñu ko ko zoo Euh, gërëm na Matar Ba sant na Matar Ba ñaanal na Matar Ba ñaanal na ko yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko xéewal yàlla defal ko sutura lépp loo xamante ni ni tamit euh, beneen mission bi ko président de la république di jox na nekk mission boo xamante ni nii mission bu noble lay doon na nekk mission boo xamante ni nii xam nga mission bu am solo lay nekk loolu dafa nekk loo xamante ni tamit xam nga euh, ñun dañ ko koy dañ ko koy dañ ko koy dañ ko koy dañ ko koy nangul daal dañ ko koy nangul léegi gars yi na gars yi abonné